waaw euh, man Macky sàll yaakaar bu tas bi ma am ci moom sérieusement du côté bilan matériel du côté du côté mais yaakaar bu tas bi ma am ci moom mooy musuma toog xalaat ni un sénégalais dina mës a xëy di teg askan wi métti di leen métital di leen naqaral di leen tooxal di comploter ci seen kaw di toppante ak ñoom xoolal tey jii par exemple li ñu am ci détenu politique ci lan ci Macky Sall moo tey jii ne dafa singili benn parti bu fi nekk muy Pastef neexuñu ko il va tout faire pour les emprisonner quelqu'un comme nit dof bi nga xamante ni Sénégal yëpp xam nañ ko ci comment il est positif ñu jël ko jàpp ko def na sept mois kaso bi ni des militants de Macky Sall ont fait pire ou ont dit pire je vais prendre le cas de Penda Ba bi nga xamante ni dafa taxaw saaga tout une communauté toute une saaga wolof yeeg yëpp wax lu ko neex. ñu utal ko passeport diplomatique euh, rawale ko Canada je vais prendre le cas de Suzanne Ahmed Suzanne Camara bi taxaw ne dañu war a rey Ousmane Sonko. je vais prendre le cas de ji nga xamante ni li ta bàyyi tey oustaz Assane Seck ci kaso bi waa jooju moo waa ji wax la même chose que bu Macky Sall bokkul élection dëkk bi dina tàkk oustaz Assane sekk ne bu Ousmane Sonko bokkul élection dëkk bi dina tàkk. jooju mu ngi doxi soxlaam te sax il a été promis ci boo bu ngeen toppee euh, euh, euh, kii nii ñàkkul ni il a été promis bu ngeen toppee yëf yi association des maires waaw mu ngi ci la bokk très bien kii moom mu nga ca kaso ba man li ma li bett ci Macky Sall mooy musuma woon foog ni ñu dund ak un dictateur pour yow c'est un dictateur mus raw na dictateur Macky Sall raw na un dictateur El Malick njaay bi ñu jël bërki démb dugal ko ci kaso bi parce que nee nañ dañoo dégg benn audio nit ki def ojo bi génn ne leen man maa ko def teewul ñu siisu dictateur mooy ki nga xamante ni dama lay jàpp par force nga def ak nga ñàkk a def indil ma preuve yu la neex dama lay jàpp dictateur mooy ki nga xamante ni day ñëw tooñ la ba pare jàpp la et c'est ce que Macky Sall est en train de faire bi ñuy jàpp jour bi ñuy bi ñuy mandat de dépôt les 17 personnes yi ñu jàppoon buntu kër Ousmane mais ce même jour ay militant Macky Sall dem nañ buntu palais na yow yaay dañ koy féliciter ci wax ji mu waxoon au moment où li kilifa di wax dugg ci kaso bi ay partisans Macky Sall ñu ngi wax doublem ñu leen di promouvoir. alors ñuy doxi seen soxla. alors day day andi vraiment Macky Sall moom mbetteel bi ma am ci moom mooy. foogoon naa ni duñu am koo xamante ni daf ñuy xëy di ñu tooxal suba ba ngoon jot alors day tax ma andi